alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu bi Kossy bu amee ci réew buur ba rekk ay jëggi waa réew mi toog am na 1967 68 nawe lool boo suñ président bi ñuy wax Senghor mu ngi fi mu daal di dem ci bitim réew wuti fa dund ñi ne la dem ñi ne feneen la dem ba demee ñi jox ko fa ay bato yoo xam ne am na ci bato yoo dix-huit mille ton lañ def ci dugub mu di ko indi ko Sénégal ku fa demoon ku dul président bi doo fa jëlee kilo président bi moo dem moom kenn di jëmmi Sénégal xut bu noonu la bu taxawee ci péew yàlla bi du pour moom waaye pour ñëpp la waaye moo xamul soxla ci li yàlla xamee du ko joxe lu dul yàlla lu dul yàlla xamul ci soxla waaye bu taxawee ci péew yàlla ba soxlaay nit ñi moo ko fa tax a yóbbu yàlla du ko bàyyi mu dem mukk te bu demee lam fay xam lu nit ñi bëri bëri ñi ko topp luñ bëri bëri bëri bëri bëri bëri dana leen jox te du jeexal Moussa laajoon na ko yàlla bi mu nekkee xutbaaniyatul husma ne ko ndax man nga maa jox loo xam ne daj na nit ñi mu ne ko Moussa bind naa fukki junne aadama ak ñaar aadama bu nekk am na fi fukki junne at ak ñaar aadama yooyu yëpp man maa leen di dundal ci benn magasin boo xam ne ba ma ko sancee ba ma sancee na su njëkk sa fukki junne aadama ak ñaar aadama ju nekk dikk na ci xëduna am fi fukki junne at ak ñaar ñool ñëpp man maa leen di dundal ci benn magasin boo xam ne Mikaël ba léegi xamagut fu mu dugal tànkam ba ci magasin ba ndax kook dana jeexal ndax kook dana jeexal boolante naa laa ne nag mafatihul kunoos ki nga xam ne bu dikku caabi bi bunt bi kenn du ko ubbi muy maam Ibrahima Fall mu ubbi leen buntu yàlla bi Maodo Fall defal ñu ko bal ñu def ni nga defoon ñi nga bokkat ci baay ba métti gaañu attaqué ko mu leen dem nañ ca baay gaañu dem ca baay na ko ñaanal ñu xam mbir mi dëkk métti na de mu leen del ween ci Héro Fall mooy xaritaw yàlla moom rek moo mën a ñaan yàlla dimbale leen ndax mooy ma faatil kunos ñu del si ci maaram faal maaram faal sëgg ba mu yàgg mu sëgg daal di ree ne leen yéen ñii nga xam ne yéen bu mu leen joxoon tey ba ba ngeen nekk ay milliardaire rek ngeen daf baay morom yéen muqaddam yi yéen ñëpp ku ci nekk bi baay xamat oto sax xam nga oto bi baay tabaxat këtam yéen tabax ngeen seen kët ba mu ne seng baay bu mu ko santee ma bañ waa waaw 1952 loolu indi na ko problème moom itam de gaañe na comme moom moo toog fi na fi dégacé wu déedéet laa yum xaw wala yu badal na fi dégacé wu ci ma fatil kunos gi ñu jox ko keneen ndax moom mu defar ñu bàyyi na leen yàlla ku koy def def na ko ba pare ke yàlla du fal kenn di ko folli lenn rek la nangoo joxe mooy xam-xam moom la Ibou Diouf wax na xam-xami baatin yi gën a sell ci mbooti Tijaan moom mii rek moom maay refa rek moom la ci yàlla ak bàyyi jox ay ton kurul kooku li nga fëgg ci sa dënn bi rek nga xam denc loo dara moom moo ci xam ay ton jëm nga barham ndax gëm nga barham te mooy ma faatul kon tëbb yëpp ci moom loxoom laay daje moom moo koy joxe léegi tëbbi xam-xam yéen a ngi nii bu fekkee waxal ngeen yàlla dëgg dëgg dëgg bu ngeen fi baxee ko ku ngeen dajeet mu tërbiyuhu te jokkuwut ci maam Ibrahima Fall bu ngeen dajee moom bu ngeen waxee dana xeeb xam-xamam dana leen naw mooy lu ko Ibou Diouf xam-xami baatin yi gën a sell ci mbooti tijaan yow rek li ci yàlla jox ay ton gëm nga barxam yan na yàlla bégal say ndongo ci mbooti tijaan ñoom yan nañ sooke xel mu baatin Ibou Diouf waxam ji lu may wax duut warlu du ñaan lu xam la ba pare mu koy nettali rek loolee ko may loolu moom bëgg bàyyi ko may loolu bëgg lu nekk la mën a maye yàlla mii bu xamu doon bëgg-bëgg ci bind du bind kenn waaye kere bam bëgg a bind bëgg googu moo ko tax a mën a moo ko tax a tajiliyaatu xaqiqatul muhammadiya ba bind lim bind yëpp kon bëgg mooy joxe mooy pepp bi nga xam ne mooy jiwu yàlla ku ko xam-xam nga lu nekk yaa nañu yàlla may bëgg goo xam ne gii lépp loo xam ne lii nii njëriñ la rek mu hëmb ci biir bëgg googu noonu maa ngi leen di ñaanal ne buñ balaañ fay del si kenn ku nekk na soppeeku goo xam ne génne bu dikkee dana ko rusoo wax sax laa ilaha illallah waa Kossy TV am ngeen ngeen ñi ànd ak ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV